Albourham Evans, le numéro 1 de l'événementiel, modèle squad au devant de la ak un gala méga gala de lutte. Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, mooy jàkkaarloo ak Tapha le géant du Baol, un choc de gladiateurs pour la couronne de l'empereur. Drapeau, Pape Ibrahima Diagne Bassirou. Grand Serigne de Dakar Alburakh Events fas yéene boucler la saison dans l'apothéose ak ay ngandi grand combat ci benn takkusaan Sokh Boy Day ak Mama Lamine Blindé war ak Zambla Bébé Saloum war a jàmmaarloo ak Jacob Baldé Malaw Seras mooy daj ak Ndandi Fall ordinateur war ak Ndoul général bu war a daje ak Boy Malika Kirikou waxti daje ak Ardo Viengolo wàcc jàkkaarloo ak Tafatine bu jàmm gën waaye nag c'est événement grandiose uniquement sur pay-per-view lay doon benn télévision du ko wone bu ngeen ko bëggee seetaan da ngeen ci dem ci widewo point tv wala seen affiche point com 10 000 francs ngeen di jëndee code bu dee Sénégal 19 euros 99 au niveau de la diaspora date à retenir 21 juillet 2024 arène dimanche ak Albourakh Events. laa ngi noonu di ñëw ah yaa jox na ni moom la wala ngay dëla mooy doxar ndeysaan mystique bi yaa ngi noonu di génn suukar bari na ci de te lu weex la banaana banaana ngoog day sucré <laughs> gars yi dañuy làmb nag oto baa ngay dem oto baa dem ah kon mu xaaraat rek waaw ngay ngoog ngay ngoog jëloon naa loolu lañ naan mbax ay waa ji la ñoo neex Gueye numéro 2 AO bi noonu ñëw na kon xam naa ni certainement certainement Balla soreetul de parce que nee nañ derrière chaque grand homme y a une grande dame léegi gars yi nee na à côté wax à Sadio Sane kooku mais Sadio Sane jeex na ah. forme bi ma ngi noonu di xaar laata di ñëw ma jéem autant Thank you. <laughs> borom Paris. déggal waaw Matar Matar insistel foofu. doomu Ndeye Sidi Diop. ku baax ak Serigne Saloum. Nakalado kando yaw. mën lu ne ay gàddu sa tala yow yow gàddu sa tala la waral la waral tontu ko da nekk sa néegu sëy ñu naan la may may image ak fi image am moo tax bi ma gisee vidéo yi kii xam naa ay waxi image ay fa programme am xaaral ma zappe ko borom loxo bu gaaw ii bu ko ñàkkoo di ko de. yàlla mais mais mais mais mais bëri nag pression la surtout neer bi fi muy toog man bu ma ñëwee ba gis moom doomi jàkkaarloo automatiquement damay tiit nekk na daal.

Balla Gaye préparation dem euh, open press ba di génn far mu taw taw de xéwal la moom de waaw ñu ngi nii en direct xaar champion bi génn mu gunge ko demee mu stade sànq yaa ngi seen ci balcon bi ba juróom jigéen yaayam moom ma ngi na la toog ci balcon bi ak njaboot sew bi waaw jotoo mu nekk sànq ba dugg xam naa day waajal li nga xamante ni moom mooy mag bagage yi mu war a yóbbaale yooyu ndeysaan njaboot gu sew gaa ngi ndeysaan wala benn bu dee xam ne Balla lay bëre ndax yàlla da ko may bayra mu war a jàkkaarloog Tapha Tine dimanche le 21 juillet 2024 muy combat tubaab nee na yaa dem jamais 203 da koy gañe ñaari yoon wala Tapha day machine yi loolu reventant nañ ci xam dara incha allah gis ngeen seen sortie yi nga xam ne def nañ ko def nañ ñetti yoon ay face à bu mujj bi di flex lañ ko def donc mu nekk face à face bu neex français mbëri ñu déggaat ko <laughs> xam nga nag day neexal làmb quoi <laughs> guy gi da doon jaay mën mën a làq rek Balla ñëw ni leen maa leen gën a agressé. <laughs> non Balla français mi rey na ma. français mi rey na ma xam naa ni Modou Lo moom dee na bay bëgg a dégg. nag làmb noon la affaire yi ngay neexal face à yi xam nga pour sponsor yeeg yeneen ak yeneen bi a sawar ci làmb ji. లాజనుకుంటాం mais saa yi bu daan def ay sorties yi nii daan na mobilisation bi daan na gën a rëy nii wala gars yi dañoo jubal stade directement. stade moom fees na dell image yi ma fa gis. image ma fa gis stade bi fees na dell dell dell dell. nag ñàkkul mu ñëw sàkku ñaan ci yaayam soog di dem sûrement Maris lay jóge bu jógee Maris jaar fii sàkku ñaan continuer dem esat mooy gétt gi bi mooy la base qu'on appelle la base fii la lépp doore te fii la daan euh, defee ay préparation musique am yëpp bala moo dem esat bala moo dem open press donc lu waaye daan def mu dig waaw waaw parce que kii frère na je mm-hmm. moo ñu jox signal bi di ñëw saa mu ngi ñëw moom ñu ngi jël seen ay dispositions nécessaires. te fii bu fi ñëwee daf fay a ñëw ndax waaw. instant yi nii dañoo bunkiri. man naan confinement Sonko yi. bari barricade fépp macha allah mais nag Kalidou gis nga li muy def nii lu baax la parce que am na ñoo xam ne buñ sañoon bala ñoo génn seen kër yi gis seen yaay mu ñaanal leen waaye am na ñoo xam ne gisuñu seen yaay donc amuñu chance boobu donc bu ko yàlla mayee chance boobu noonu da ko war a exploiter bu baax parce que ñaanal waajur moom surtout bu jigéen du laal suuf de waaw mais maire bi demul dikkul de demul demul dikkul de demul dikkul de moom fii la lay toog jàpp ñàmburam na ñëpp la njaboote ndeysaan xam nga loolu tamit c'est pas yembul quoi c'est pas évident waaw xam nga bëree dafa xaw a sensible yow nga ni nga njaboote c'est pas évident eh, borom lamb jaa ngi nii Khalidou mon ami mais maa lay siyaar ba yaa ngi ci jàmm. seet bu bees bàyyi fi laa la joxoon loxo nga liggéey bi fi laa la joxoon loxo ci biir si ko nga liggéey bi. Ah, daa mel ni bala nga déglu ñu loolu Al-Bouraq Events, le numéro 1 de l'événementiel, modèle SWAT au devant de la scène. ak un gàllandam méga gala de lutte Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye mooy jàkkaarloo ak Tapha le géant du Baol un choc de gladiateurs pour la couronne de l'empereur drapeau Pape Ibrahima Diagne Bassirou grand serigne de Dakar Albourakh Events fas yéene la saison dans l'apothéose ak ay ngandi grand combat ci benn takkusaan Boy Day ak Mama Lamine Blindé war a jëflante ak Zambla Bébé Saloum war a jàmmaarloo ak Jacob Baldé Malaw Seras mooy daje ak Ndandi Fall ordinateur war a jëflante ak Ndul général Bumbu war a daje ak Boy Malika Kirikou waxti daje ak Ardo Viengolo watti jàkkaarloo ak Tafatine bu jàmm gën waaye nag cet événement grandiose uniquement sur pay-per-view lay doon benn télévision du ko wone bu ngeen ko bëggee seetaan da ngeen ci dem ci wido point tv wala seen affiche point com 10 000 francs ngeen di jëndee code bu dee Sénégal 19 euros 99 au niveau de la diaspora date à retenir 21 juillet arène nationale dimanche ak Albouraq